الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي نوره أول الوجود وجودا فهو أصل الأصول والأنجال بين لم يصل نوره بعين إلهي كن أكسن أنت ختام مسك أك وقتاني الشيخ باي هادي cheikh Baye di domi cheikh Hadi Niass di borom xam-xam bu mag ndax ku nek xamna Serigne Adi fi la dan tok di Gamu di ko xamne borom xam-xam bu mag la di premier journaliste ci hadra bi cheikh Mouhamadul Hadi Ibrahim Niass ndax lirna naa ci journal ñukoy laaj bam di Janggu. ñu ne ko loo bëgg nek mune journaliste la bëgg nek moo tax bi mu ñëwee bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk liggéey ci rajo Kaolack ci xadra bi doomam di Cheikh Baye Adi tey moo ñuy defal waxtaan ci liggéey yi nga xam ne ndaw ñi def nañ ko ci fayda bi ak rôle bi nga xam ne jàppalante nag Mawlana Cheikhul Islam Alhaaj Ibrahima Niass ba liggéey ci liggéey yoo xam ne yu am solo la kon Cheikh Baye Adi fa lee tafaddal mashkuran الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن إمام الأولياء وممد الأقطاب والعارفين مولانا أبي العباس سيدي أحمد بن محمد التجاني الفاسي وعن خليفتهما على الإطلاق مولانا ومربنا وقدوتنا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم يس رضي الله عنهم وعنا بهم آمين وعن كافة مقدميه ومريديه وأحبابه من مشارق الأرض ومغاربها فضيلة الشيخ أحمد تيان إبراهيم يس خليفة العام لصاحب الفيضة مولانا شيخ الإسلام حاج إبراهيم يس أطال الله بقاءه ñu ñaan يالا يالا قد الفنم سيدي ومولاي شيخ محمد الماحي إبراهيم يس مدير المعهد الحاج عبد الله يس سيدي ومولاي شيخ محمد الأمين إبراهيم يس وكيل دعدن أطال الله بقاه يالنا يالا دفلك التوفيق أك تقدقي سيدي ومولاي إمام الأكبر شيخ أحمد يان علي سيسة سيدي ومولاي شيخ ماحي علي سيسة ناطق رسم باسم الحضرة إبراهيمية أطال الله بقاءهم جميعا أيها السادة العلماء والمقدمون إخوة المريدين والأحباب جمهور المدعوين أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي في البداية أن أعبر عما يشعر قلبي في هذه اللحظات من الفرح والسعادة وهي لحظة لقاء الأشباح ولقاء الأرواح لحظة مجالسة في الله ومؤانسة في الله ومناصحة لله وشكر له على أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بكي gannaaw buñ sante yàlla julli ci yonent الله sallallahu alayhi wa نيو ñu ngi waaye di jiital ci nuyoo bi xalifa bi Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass ñu ngi teew ak moom fii laamin yépp ñu ngi tudd di koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam yàlla yàggal ko ci kanam njaboot gi waaye yàlla ko yàlla del dellusiwaat si jàmm mu fekk ñi ci jàmm ànd ak wér ànd naataange ànd ak tawfiq bi jaay seydi wujuud sallallahu alayhi ñu ngi koy ñaanal yàlla sémba mi nga xam ne sémb ko fi ci pey bi yàlla na matee ci kanamam ba sémb yeneen sémb yoo xam ne tàmbaleegun ko sax buñ ko ñaanalee mooy ñaanal neen ki nga xam ne mooy mudirul mahad cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass ñu ngi koy ñaanal yàlla gudd fan moom tamit mu yàggate te njaboot gi yàgg jiite mahad bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ko ñaanalee dina ñaanal borom jotaay bi di taaru jotaay bi di kii ñëpp fuuglu muy kan muy seydi wa moolaay cheikh mohammed El Amin Ibrahim yes nga xamne deug deug degg li bàyyi waxoon rek serigne nokoy topé moy bu ne teul rek nga fatul ko yàlla bu waxe waxam fatul yàlla nga ànd ak mom nga jégué yàlla la cheikh na cheikh mohammed El Amin kep ku ko gis rek sa xol toy sa xol fatul ko yàlla ñu koy ñaanal yàlla ci guddigi yàlla nako yàlla dafal tawfiq ak taysir ba motali ko ci jàmm yàgg a mottali ay guddi yu bëree bëri bëri yoo xam ne dañu ànd ak moom ci guddi gi yàlla mën na yàlla ko yàlla def mun ko nuyoo ziyaar ko ñaanal ko mooy ñaanal neen imam al akbar sayidi mawlaay cheikh ahmad tidiane ali Cissé mooy ñaanal neen tamit rakkam naatiq rasim bismil xadara cheikh mohamad al maahi ali Cissé ñu ngi ndokkeel jotaay bi yépp góor ak jigéen mag ak ndaw gan ak dëkk di leen ñi tatagal bu baax ci pays Mawlana Cheikh Lislam Hadj Ibrahima Niass ci fii nga xam ne fu la daan jàkkaarloog taalibe yi di leen waat ci yonent bi sallallahu alayhi moo waxaan ne bu toogee fii ci mina sabi dafay jàkkaarloog yonent wi sallallahu alayhi ba bët set lépp lum ko ñaan rek mu nangu ko te yàlla nag rus naa def ci barab teraanga ak barke ak naataange ak nangu ñaan ba ñépp xam ko fu mu jëlee ko fa laa shakk ne la woon démb mooy tey ñu ngi sant yàlla ci loolu bu baax a baax a baax ah ñu ngi gërëm lajna thaqafiya bi nga xam ne moo ñu jox tey pour ñu ñëw waxtaanee dawrul fayda fil islam wala dawrul shababul fayda ma jàpp ne hada al yowm yowm imtihaan tey ma jàpp ne ba si examen la donte alwa ju ma kuut waaye dañuy muxaawala rek wax ci la woon démb rek muy wante layante bir ci li nga xamne mom la mag ñi fi nekkon mané mawdu bi moy dawru shabab fil fayda moy nafsuhu huwa dawru shabab fil islam mbém tambi la ndax yonentu bi sallallahu alayhi wasallam mom la bay bëggoon mom la doon ray mom la doon xol ba lépp lu mu neewoon rek mu nekk ca motax bayina ila sara ida nas sirtu waraahu wa in xalla yowman fal masiru baidu yonent bi doxee mu dox ànd ak moom mu ne ndox bu ndow dox bu gudd ndax dox boobu dëgg-dëgg amul taxaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du taxaw te moom tamit mi nga xam ne moo sa rëkk ci moom du taxaw ndax dafay ànd ak moom ba keroog ba ñuy dajee bés penc mu taxaw continuer di koy tagg comme lu mu ko doon taggee ci jamono muy jamono ju muy dund amma dawru sheba fil islam waaye balañ koo wax dañuy wax man huwa shab kan mooy ndaw shab mooy lan huwa alqadir ala ma dacufa alayhi sigar wa ajza anhu alkibar ndaw mooy ki nga xam ne moo mën li ndaw mën a gut mooy tut tànk mooy moo mën li mag ñi mën a tut bon mooy yaakaar humal mustahdafun mooy ñi nga xam ne ñëpp moom lañ xool bët yàlla moom la teg bët yonent yi moom lañ teg bët ruasaa yi mooy président yeeg buur yéeg ministre yi sëriñ yeeg ñëpp moom leen teg bët ndax ñooy avenir ñooy yaakaar mu ngi mel ni tant bii rek fekkoon na ay tuut tànk ñoo fi ne buñ ko buggoon a taxawal dina metti fekk waxuma na du sotti waaye di dina jafe mu ngi mel ni tant bi fekkee ne ay màgget ñoo fi ne bu ko taxawal duma wax ne dina madde waaye dina jafe lool lu ko waral mooy ne shaab huwa alqaadir mooy thamratul xayaa mooy xayawiya mooy saxa mooy aql mooy nashaat mooy lépp loo nit soxla rek ci shaab ci la ko mën amee moo tax moom la yàlla yaakaar moom la yonenti yaakaar yàlla yonenti yépp sallallahu alayhi wa ñoom yàlla bum mu leen yónni ci seen waxtu ndaw ci la leen yónnee saydi walaay marhaban bikum marhaban xamal mansour ibrahima yes ma ne shabaab bi moom la yàlla yaakaar ndax mboolem yonent yépp dalee ko ci aadama ba ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñépp ci seen waxtu ndaw ci la leen yàlla yónni ki nga xam ne moo kase mboolem yonent bum amé 40 sene ci lako yàlla yoni mu matal mission bi nga xamné mom la bëggoon pour mu jot ci alam yëpp alam yëpp jot ko motax mu ne buistu bi al-bayda fa ash-shabab wa ash-shuyukh man yonatu bi kat yàlla daf ma yoni ndaw ñi dañoo ànd ak man mag ñi dañ ma wuté wolof da fay wax ne mag tout le dafay du wax ne du ma fecc ci yàlla naa dee wala bu may naan ndox mu tàng suukar ta moo tax wala njëriñ loo fekkee mag tout le temps loolu lay wax te ñoom tamit mag ñi dañ doon wax ne inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala athaarihim muqtadun ñun kat dañoo fekkoon sin bàyyi ak sin maam yi nekkoon ci lii kii ñëw bërki démb rek na def ñu fi bëgg a indil diina joo xam ne mënuñu koo xam ñoom ñu wuute ko ñi nga xam ne dañoo àndoon ak moom nag ni ki Aboubacar Siddiq moom bu mu amee 30 ans wala 38 ans ci la tuub yenentu bi mu ko magee ñaari at nga ñëw ci Umar ibnu Xataab moom yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam mu ko megee fukki at ak lu teg bu koy bu muy dugg ci lislaam ولا ينتبه مم مم أم تران تران 28 عام مم عمر مم لا أم بمدوج الإسلام سيدنا عثمان مم أم تران تان سيدنا علي موغنون لو مم ويت عام نيوم أسامة بن زيد نيوم خمنا نيو يرون راية الإسلام يرون راية قري ينتبه صلى الله عليه وسلم تلنا جهر سام سابلته بوب أي 18 عام رجلا نيو قري الإسلام nek ay jambar yo xamne ne kenn ku nek ci ñoom daf nga ay jollere yo xamne ne ne kenn xamunum tollu ki nga xamne mom lay silite ci bir sahaba yi nak moy musab ibn umayr sahabi la won ci sahaba yunus bi sallallahu alayhi wasallam lu jitu lolu moy mom ci bopam yàlla daf ko defoon mu nekkon ci askan bu baax ay wajuram nek ñun ñu tedd ay boromi alal te kenn la ci yaayam kenn la ci bayam ne ay milliardaire laa mën a wax ca ci jamono ji yére bu mu sol tey dootu ko solaat ngir barke parfum xaas la kenn du ko laal ku dun moom mu nekkoon nit koo xam ne lenn rek lañ ko doon maytuloo mooy lan fexeel ba bul déglu yonent bi sallallahu alayhi wasallam fexeel ba bul ko jege na nga ko sori na nga ko moytu mu doon maytu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba benn bés mu jaar ci weti daar alqam bin alqam mi nga xam ne moom tamit ci sahaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bi fofu la don laqo mom tamit bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di laqo fofu ci kërëm bobu dañuy wax ne ne vingt ans mi sax matut ba na ngay dégg ne xayoyatul islam yépp mu ngi ci shabab ñambatul islam ak cawatal islam yépp ci shabab yi la nekkon yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa téla a responsabilité shabab motax ñi ñii ñépp mën a taxaw bi gannaaw bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyeekoo ci taxaw bu gën rafet Mus'ab ibnu Umayr kun ko doon maytuloo fekk na yàlla xiir na ko ne dina dina wuuti woote yàlla bi mu ñëw déglu laaye mu neex ko lool mu daal di dugg ci lislaam bi ne ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci tënk waajuram yi tong ko baayam tong ko yaayam tong ko génne ko mu daal di dam jébbalu ci yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam nga xam ne da daan changé ay yére bët bu set daawut sol benn gesolaat yére bu mu duggee ci lislaam yére boobu la moom la deyaalee loolu fekkee ne am na benn karaama wala benn mujisa day wane ne dëgg-dëgg lislaam bi dëgg la alxaqu yaalu wala yola aley ba tax na keroog bu mu génnee àddina yonent bi sallallahu alayhi sallam dafa yëkkati na nañ ko nañ ko xool képp ku ko xool rek sa yaram na safara lu ko waral mooy daf doon défendre yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xarb bi ñu jam ko fukki fett ak juróom-ñett ci défendre yonent bi sallallahu alayhi noonu la dee ak yàlla yëre boobu nga xam ne ci la duggee ci lislaam nekkoon ndaw loo xam ne set la woon waaye bu mu duggee ci lislaam dafa gën a set waaye yàlla baaxee na ko mu nekkoon ci yërëm boobu ba keroog bu mu génn àddina moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy idolu Mawlana Cheikh al Islam Hadj Ibrahima moom la doon roy moom la doon xool mom la bëggoon ba taxna mu jël mom tamit léppam jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël ay ndawam jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam xam loowu len kenn ku dul yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg loolu len kenn ku dul yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu ne yuxaadiruni fityaani sidqin qad akhlasu ila allah qasdan lan namuta wala nahya ay ndaw ñi ngi toog ak man ño xamne ndaw yu deggulen ndaw yu sel len ñoo xam ne dañoo dee njëkk dee di am waaye tamit dañoo dund njëkk am di am bon nga xam ne kooku kat teel na tàggat ndawam yi comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi bëggee ndax moom bëgg yonent bi sallallahu la defoon muy xayaatam moo tax mu ne kenn ku nekk am na koo bëgg muy soxna wala doom wala taalibe waaye moom yàlla bëggloowu ko nattuloowu ko kenn ku du yonent bi sallallahu منو كل وليلاه وبرهام مبتلا بأحمد خير الناس عين البهائي ومن حسد جار علي وإنني مبرز أقراني أوان الصبائي دنبني وإني عبد الله أتلو كتابه وجنبي رسول الله دهر وقرض يون باي mu لب لوي أورك ut rek boo صلى الله عليه وسلم فك كوفا wa sallam أوت boo demee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ko fa ndax mooy aynul bahaay mooy jëmmu taar beneen taar rek dafay jeex jigéen dafay jeex taaru ndaw dafay jeex képp ku am taar rek taaram dafay jeex waaye taaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du jeex ndax mooy tëbb taar yépp moo doon may yonent yi mooy jant bi mooy tëbb weer wi mooy tëbb buddi wi lépp lu am taar sax ci leer yonent sallallahu alayhi wa sallam yàlla yonent bi wax sax ana min nuurillahi wal muminuuna min man maa bàyyi ko ca leeraal gu mag képp ku am leer rek ci sama leer man yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bàyyi ko bàyyi na yonent bi dafa am teggin rek waaye mënoon naa wax ne bépp leer rek ci sama leer la bàyyi ko ba leer yi lamp yi sax ci leer yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bàyyi ko ndax yàlla moo tëj lii ci moom ba mu nekk di moom moom bàyyi boo xoolee tamit yàlla dafa defar ay mbiram comme nu mu defaree mbir yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy woote fayda bi ñun ñëpp xam ne ne ñaar fukki at ak juróom-ñeent la am muy 29 ans ndaw yi àndoon ak moom ëpp do ëpp doole gi yëpp moo leen mag boo xoolee Seydi Aliou Cissé mi nga xam ne mooy xalifaam nekkoon kaatibam nekkoon ministre am moom 1906 la juddu bàyyi juddu 1900 am ñuy wax 1905 waaye ñaar yëpp dafay dem moom Seyd Ali Cissé moom teel na ànd ak bàyyi lu jiitu muy am ñaar fukki at ci la ànd ak bàyyi ban loolu dafay tettale ne seen àndoo gi yàllay kese la seen àndoo gi yàllay kese la maa kaane lillaahi daama wa tasal wa maa lam yakun li gayrillaahi inqataa fasal yàlla googu la àndoon ak moom ba tax ñu daan fuglu li nga xam ne moom leen doon fuglu ndax baay daan na wax ne wala daan nañ ko wax ne ko bu muy ñaa bu muy am ñaar fukki la dal bushra raw na ay maasam la ad ay la ad yu daaw ba muy am ñaar fukki at lu jiitu ñaar fukki ñu ngi doon fuglu ay mbir ci moom ñu ngi doon fuglu ay karaama ci moom ndax dafa teel xam responsabilité bi nga xam ne moo koy xaar moo tax mu fuglu ko ci na la ko fuglu mooy ci jàng ku bëggoon jàng la dafa wax ne ne taalaatu jamii kutubu waalidi mboolem téere yi nga xam ne sama waajur amoon na ko rek jàng naa ko ba tax na nettali neen ay xisa boo xam ne bu wér la dégg neen sin mag ñu koy nettali mooy ne yeneen mooy ne bàyyi ci boppam toog na benn bés ci roon garab di jàng benn pël romb ko ci suba teel na ko romb ko suba teel wëy dam ñëwaat tusbaar mu rombaat ko fekk muy jàng mu ñëwaat tàkkusaan romb ko muy jàng mu ñëwaat timis romb ko muy jàng mu ne ko xale bi xale bi la yaa bëri wak romb naa la ci suba yaa ngi jàng romb naa la ci tàkkusaan yaa ngi jàng romb naa la ci tusubaar yaa ngi jàng ba dëgg-dëgg yow li ngay jàng nii yéem na ma xam naa ne yàlla di nga bokk ci kamteen yi jamono loolu benn pël seedeeloon na ko ko ngir wane mbëggeelam ci xam-xam ak nosoom ci xam-xam mbëggeel googu nga xam ne amoon na ko ci xam-xam ak noso googu nga xam ne amoon na ko ci xam-xam ba tax na ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom Seydi Mawla Cheikh Mouhamadoul Macky Ibrahima Niass mu ngi teew Seydi yes yes yes yes motax mu daan fuglu li nga xam ne amoon na yaqin na dina egsi ci moom moo tax mu ne taati qariban taati qariban ñu ne ko lan muy fayda bi mu ne hayyi'u li tafriq al aghyari fa taxdaa bi mawdiin mu daan fuglu li nga xam ne mboolem saxaaba mi ñu ko doon fuglu motax li nga xamne mom la doon fuglu mbollem sahaba mi ak ñu àndoon ak mom daan ko fuglu muy lan muy fayda bi nga xamne cheikh ahmed tiani moko digge won nak ne ko taatil faydatu ala hatta yadkhulu an-nas fi tariqatina afwajan afwajan tariqa fayda bobu ñu ko doon fuglu waye ndigal li bam joté bam ba mu yëgee na abdoulahi génn na àddina te momu moko garantie won nako anta saaxibuha xaqiqatan te moom majaasal la woon ba mu yëgee na dee na wala uy ji na boromam ci la déclaré ne képp ku bu xam yàlla na nga ñëw ma xamal yàlla moo tax ndaw ñi moom dañoo àndoon ak moom comme nuñ ko waxee comme nu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam meloon na buistu bi samxati al bayda fa xaalafani shabaabu wa xaalafani shuyuxu moom nag dafa wax ne yuxaadiruni fityaanu sidqin qad axlasu ila allahi qasdan lan namuuta wala naxya shabaab yooyu ñoo àndoon ak moom shabaab yooyu ñooy ñan mooy ku ma ko tudd si sànq ci kanam mooy xalifaam seydi wa moolaay seydi alin siise mi nga xam ne ndawam la woon nekkoon kaatibam nekkoon amina siram na ko noonu tamit seydi wa moolaay cheikh aboubacar al musanna mi nga xam ne baay daf ko daan wax fataaya wa rasu sahbi sama ndaw te sama njiit ci samay soppe yi ak samay taalibe yi moom tamit 1905 la juddu bàyyi magee ko juróomi at ba na ngay gis ñëpp ay ndaw leen bay fayda bi ñëw ñii ay 24 ans leen am ñii ay 25 ans wala di xaaj abdallahi mi nga xam ne bàyyi wax na ci moom na xadama nii ka xidmatul wazir yi liggéeyal na ko ba gërëm ko ba am ngërmaneel bàyyi njabootam gi yëpp noonu la meloon cheikh mohamadul mahi mu tudd ko kufri cheikh mohammed Nadir Ibrahim nyes mu dénk ko mahad bi to lol yeb dañuy wax ne jamono joju ay fanwéri at lañ am mu jël imam Hassan Cissé radiyallahu anhu yàlla yàlla yok leram mu jël ne ko yow yaay don sa bay te bobu ci ñaar fukki at ak yu la tollu lolou da fay a responsabilité shabaab yi ngir wal ne ne dawru lakum min ba'dina seen dawru muy ñëw ci si gannaaw loolu yépp pour wane ne chebab ñooy ñooy ñooy mustaqbal naka noonu oustaz Ibrahim Mahmoud job noonu la ko jëlee woon taf ko ci boppam mu'tamarat alim islami yi nga xam ne wuute woon na ko wala mënul faa teew ngir ngant moom la doon jox pour mu dem wuutu ko fa naka noonu cheikh Mohamed El Hadi Ibrahim yes di sin waajur mu teel ko responsabilité defoon ko journaliste mooy ki nga xam ne moo njëkk a def tontu taaxal mooy émission question ñu lay laaj sa diina mu koy tontu bés alxames loolu Cheikh Mamadou Hadi la ko joxoon pour mu koy def mu jox ko ci ndigal bu wér maa ngi fi ay seede ñoom Cheikh Ahmadul Makki Ibrahima Niass egsi na léegi ñoom fekkee na loolu ñoom ñëpp teel na leen a jox dawru ci li nga xam ne mooy mission bi ba mu nekkee ca Qaahira dégg naa ci démb ci zikar ci nga xamne mo amone cheikh keur Cheikh ahmed dam Ibrahim Niass ñi ngi wax ne ci Qahira ci la Baye joxe lijaza itlaq Cheikh mohammed al Makki Ibrahim Niass bi nga xamne mo fi tok ni hada in dalla ala cheyin fa innama yadullu ala anna cheikh kana yahtamu bi shabab fekene li amna lenn mi tettale dafay na bàyyi ku beggone ay ndawam la ku beggone shababi la di len tashjiya motax bay yamuti njobotam gi rek waye waxna ne laqantu wa lam tuaddu kalimatu tawhid fatul adda mune laqant mune tubalna ay junne junne nit ci l'islam bi jox len tariqa bi jox len li nga xamne mom lama yàlla yónni muy fayda bi nga xamne mom la Cheikh Ahmed tiane deewon joxna ci ñu bari dugal naa leen ci lislaam bi waaye ñu bari dugal naa leen ci tariqa bi ngir lan ngir wane ne yonentu bi sallallahu alayhi wasallam moom laay roy moom laa ñëw pour montali l'émission bi nga xam ne yàlla dénk na ma ko moo tax mu ne alawtu lbihaara zaxiraat wa innani alawtu lqura walmudna bal hal jibala arumu rida bali linusrati diinihi wa ubrizu lil jiili ljadidi mithaala mu ne tukki naa ci jaww ji tukk naa ci nga naa tukki naaw naa ci saxaar si wala naaw naa ci jaww ji dugg naa ci saxaar si dugg naa ci oto yi fu nekk jaar naa fa ngir lan ngir indi ay misaal yoo xam ne war nañ koo roy ci man pour ñu jot siñ càkkutéef mooy lan mooy ñu dugg ci lislaam bi ñu téye sin tariqa bi waaye ñu téye ci fayda Mawlana Cheikh al Islam Haaj Ibrahima mi nga xam ne moom la Cheikh Ahmad Tidiane woon moo tax Mawlana Cheikh Islam Hadj Ibrahima ci fayda bii ndaw ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom daf leen daan tasjir saa su nekk tasjir bi mooy lan daf daan nas ay bayt di leen koy ñaax pour ñu roy ci loolu mooy lan bayt yooyu mooy ayaa fityaan hada darsi ñu ne ca kuusi la ayaa fityaan hada darsi fuqtum afadila li taxtasu an alfiraari masaila taallamu kulla fannin فتوحيد ربنا لقد جهل الرحمن من كان جاهلا كذا علم نحو وفقه من كان جاهلا يعد من من الفساق حل المسائل كذا علم نحو من كان جاهلا عليه سكوت حين تخشى منازلا وجهل عريض الشعر جهل معرة كذا أساليب البلاغة سائلا كذا الطب منه تشفي وتشتفي كذا علم حساب حل المشاكل دنبني ولا تنسوا القرآن فليس ملذة تدانيه عمري حين تتلو الفواصل مبولم فني خمخمي باي دان تشجيع أي نجبوتم أي دومم pour ñu jàng ko ngir lan ndax xam-xam mooy njiit ku amul xam-xam doo mun a jiite ku amul xam-xam doo am benn responsabilité ndax xam-xam moy jitt motax tax mu daan tashjii shabaab yi di la wax ne inna mustaqbal inna mustaqbal kulli watanin inna ma yatawqafu ala shababihi la ala kulli shubban inna ma ala shabab almuthaqafina dhawi alaxlaq alhamida wa himam alaaliya mu ne avenir peuple bu nekk mu ngi sukkandiku ci ay ndawam waaye du ndaw yi nekk ndaw ñoo xam ne dañu am culture dañu am xam-xam dañu am teggin waaye tamit dañu am hitte yitte boobu la bàyyi def ci ay doomam yitte boobu la bàyyi def ci ay taalibeem yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla nañu yàlla fayal Mawlana Cheikh Lislam Hadj Ibrahima ñu ngi nuyu jotaa bi yëpp du nuyu sin waajur yi fi nekk yëpp ni ñu wax li ñu mayoon ci waxtu jeex na ñu tënku ko foofu rek ba beneen ñoon waaye ñu ngi jégalu bu baax bépp xata boo xam ne def nañ ko fi tey bési imtixaan la woon waxoon naa ne donte mokkalun waaye lii noo xam ne la rek façon la ci ci war sawar loñu wala encouragé wuñu ci dawr bi nga xamne ñu koy jëm ci may da ñu ngi ñaan yàlla ngay ñaanal ñu yàlla Cheikh mohammed Makki Ibrahim Niass ñu lay nuyu di lay ziara di nuyu sa rak Seydi Moulaay Cheikh mohammed Mansour Ibrahim Niass di nuyu sa rak Cheikh mohammed Mansour Cheikh mohammed Chefi Ibrahim Niass di nuyu mbolam njobot gaa njabooti Mawlana Cheikh Al Islam Hadj bu teew fi ci tante bi waye di ndokel di ñaanal bu baax xalifa bi Cheikh Ahmed tiane ibrahim yes yàlla no yàlla delo ko ci jàmm yàlla may ko wér yàlla yagal ko ci kanami talibi mu yag ñoo ñaanal yag ñoo tette ba ci kanama karam waye du nuyu sin mak sin kilifa serigne Ali ibn Haaj Abdallahi waye du nuyu sin mak sin kilifa ash-sha'ir kabir oustaz Cheikh Baye nasser du nuyu mbollem ñu nekk ci tante bi du nuyu talibi di leen dokkel di leen wax kul am wa antum bi xeyr wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñi ngi yëgal soppe yi teew ak Cherif Cheikh Omar ibn Seydi Mouhamad al Habib at Tijani sànq bi baaba nekkee ci xissa yi la agsi ñi ngi leen di yëgal itam teew ak Cheikh Mouhamad al Mahi mi nga xam ne moy porte parole yi pays bi incha allah xam buñ jullee ba pare bala baba dugg ci burde bi dana jàng euh discours yi khalifa bi incha allah léegi dañoo bëggoon am nañ fi euh ben annonce buñ bëggoon a def moy lu aju ci téré bi moy kashiful albas an al faydati abi al abbas version, la version française vient d'être apparaître. Donc, euh, nous invitons à tous ceux qui sont intéressés à se procurer de cette livre de venir ici. Le prix, c'est, à 10 000 francs. Donc, euh, voilà. On a aussi annonce buñu wara def mu apparition yi ñi ngi wax livre version française bi francs euh, ñi ngi itam yi l'association euh, association connaissance et savoir et le volet scientifique de Ansaroudine France elle s'occupe de la vulgarisation de l'œuvre du Cheikh. Elle vient de publier aux éditions Sidi Ahmed Soukeri au Maroc une édition bilingue français, française et arabe du dernier recueil du Cheikh Serul Kalb, traduit par Ahmed Boukar Omar Nyang. L'ouvrage est en cours d'acheminement vers Medina pour ceux qui voudront s'en pour ceux qui voudront s'en procurer. Nous demandons à tous les disciples de formuler des prières pour que ACS et Ansaruddin France puissent réussir dans tous les projets qu'ils nourrissent pour la Hadra. ñee mbir yi lañ fi amoon sànq bi may wax ni gis ngeen Cheikh Mouhamad munhamina aksina moom mi nga xam ne mooy président Ansaruddin, président national de l' association Ansarudin muy Cheikh Mouhamad munhamina ibnu cheikh ibrahim kon dañuy jox kàddu gi cheikh ahmed xalifa pour mu sànni ñaari baat su ko defee ñu jox aboubacar kawlaxi mu jàng xasida ñu jox euh, benn programme bu am solo lool informatisé nañ tafsiri baay bi ci arab nga xam ne boo tegee sa loxo rek ci benn aaya mu jox la tafsir bi ci olof ak ci arab kon ñu jox xalifa kelima bi Cheikh Ahmed Khalifa mbolo mi assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kuy jënd ciof nak jënu ciof ku koy jënd da nga jëndalé wa sintour waaye jigéen ñi nag bu ñuy ñulug du ñulugaale waa seen tóor loolu li ma ci jublu mooy baay lu bëree bëri mi ngi ko wër ñu jàpp ne moom la fekk du moom baay am nay dàll waaye fi ne ci jotoon ci dàll yi tax nanga jot ci baay baay amoon na ay yére ndax ku jot ci yére ya ndax jot nga ci baay baay amoon na ay néeg ami lal ami siis ko ca jot jot nga ci baay déedéet baay daal man li ma xam ne ñaar yi moom bu ma ko ci jotee li ci des mën naa leen koo may ñaari mooy lan xetam gu neex ga ak sax ak la muy saf da ci des jël leen bàyyi li muy xeeñ hmm. xetam gi génn la ku ko xeeñul nag xeeñoo ko rek waaye boo ko xeeñee lépp dafay saf waaw nii waa koy waaw caméra wax na dëgg baaba la mi wax na dëgg wax dëgg yàlla neexaay bi moo ñu ci indi waaye nag am na ñoo xam ne dañuy tuddoo baay bëgg li ëpp njëriñ ci baay ñu tàggale ñoo moom te ñu ngi wax fii ci ay youtube ak yeneen di wax ne baay jotewul dara ak doomam yi ak sëtam yi te dañuy fen ndax baay moo bind ci boppam ne ku ma gis mbaa nga gis samay doom te dégg nañ ci ak seeni doom gis nga ma te dangay ngay texe ngir man wax na feneen sax waaye wax juñ laxas la ba waxee ne wa maa qataau fi charqi wal garbi fatfadan ila makkatin illa li chami shedaayi xet gàngoog te xet googa comme jëmmi bàyyi ja xam ne mooy jëmm ju jëkk ja daf ñoo nëbbu jëmm yaa ngi nii baaba la min mii boo ko xeeñee te bàyyi xeeñut la dootu la xeeñ dootu la xeeñ de خد غير رومغا وكذلك كيب كو خامني ابن او بنت من ابناء الشيخ فالشيخ ابراهيم سره في اله واي نوي مانا جانغي صلاه الفاتحه ني اللهم صل على سيدنا محمد داني كو سي اله نيونم nga jàng ibrahima te daanew ko ci aali yi kon ngay naxe dama bañ kër yooyu réeral leen ba dog leen ak baay ndax ñii ku leen romb romb nga baay mbaa baay romb na la kon nag nañ fo baaba lamin mi am na ñoo xam dañ ko doon baleel rek daal di fa jaar jaaree rek daal daanu daal di dee xamu nag dekkewaat dekkewaat nañ gannaaw gémm déet waaye dee gu baax googu ñëpp ko bëgg waaw kon nag sëriñ bi euh, nañu delloo yee fii ca fa mu nekkoon ñu xam ne ñii am nañ loo xam ne bu doon jaay ay milliards duñ ci jot waaw am na ñoo xam ne jaral leen fay milliards ngir ne doomu baay te mënuñ koo do taxut ñu do ko loolu nga xam ne nag yàlla daf koo maye moom lañ fi dese may dellusi si di wax ne fii ñu toll nii mbirum mbaay wër na àddina anglais yi ñu ngi koy wut te anglais yi pare nañoo fay pour dégg olof mbur buñ déggee waare baay yi baabala mi doon wax léegi ñu mën ko ñu mën a xam li mu wax lan la hawsa yi noonu allemand yi noonu français yi noonu son mbokki naar yi noonu kon nag nit ki du la jomb mën na laa yomb waaye nag bu mu tere nga xam te nangu ni lii fa jomb ñun bàyyi foo waroon a feeñee feneen ñu dugg ay oto ak avion di dem di ko wuti yàlla baax nag mu wàcc fii te ñun kat li xam ci bàyyi mooy li wax ci boppam waaw mu ne wa kayfa laa wa ayni l yowma aynu muhammadin qad sara sirruhu fi heykali wa riwaay loolu nag am na firiin woo xam ne nangu na ko waaw bu bu ma ci jóoma dem ma wax suñ baabu baabalin bu ma gàggante na bàyyi noonu rek te mooy lan mooy rek maa yónent yónent man ku ma daj daj nga yónent bi ku daj yónent bi daj nga ma du ñaar kenn lañu loolu mooy firi ne xarsara firruhu fii heykali wariwaayi loolu boo ko doon firi coolo maa di manam maa di moom ما كجاهل أنا ما بايعك يرنتو بانك صلى الله عليه وسلم والسلام جزاكم الله خيرا كنا دنيء ندعو السيد أبو بكر الكولخي ليتقدم لإلقاء قصيدته وهو من كامرون يؤسن بك أبو بكر alkawlaxi mii nga jugee ba Cameroun dafa am xaside bu muy jàng suñ paree ñi ngi fàttali mbooloo mi ne hadiya Cheikh ñu préparé pour dajale ko léegi comme niñ baaxoo di ko def euh, ñi ngi oo ñëpp ñu joxe seen hadiya waaw ku koy ba بابا 100000 فران francs ñëw leen nag wa fi dalika falyatanafasi لا بد من اختصار القصيدة لأن الوقت ضيق جدا الوقت ضيق وهناك برنامج أه؟ بسم الله وقت ضيق خذ حوالي خمس دقائق أو سبعة نيني او سيدا ام كلثوم ابن سي ابن الشيخ عبد العزيز نيشا احمد منمي ген غير مو ген داجاك موم جزاكم الله خيرا ابو بكر بسم الله خذ خمس دقائق او سبعه على الاكثر لان هناك برنامج برنامج مهم ونريد عرضها امام الشيوخ للتبرك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 ala fahdini hatta asiran nahadia, laqad rawahatna rahataka min al-ana wa amarta irfanan rubaka rababia, litamla lana nahlan wa alan ku'usakum wasuq waskini hatta suqan nasaqiya wa ruhi wa jismi thumma qalbi bila dukum wa kunta biha hillan wa khillan wa sawiya هنيئا أنو لي مسرة مهجتي إمامي أبو إسحاق ها هو أمامي إلى آخر القصيدة آه ندعو الأخ الموريتاني الذي أعد برنامجا مهما جدا في تفسير الشيخ وركبه مع المصحف بحيث تتمكن من ضغط على آية لتسمع تفسير الشيخ بالعربية أو بالأولوفية دفع دف بنو بروغرام انفورماتيك بو أم سولو تي تفسير بايبي تي عرب اك فر اك تي والوف موي بنا خمنا بو لالي بن آي مو جوخ لا دنگا ديگ باتي باي تي عرب دنكو ديگ تي والوف واي نيني فاتلي نيم مي نلن ني اندي دي شراف euh, nous rappelons tous les disciples que le shérif Cheikh Omar, comme nous avons l'habitude de le faire, de rassembler son hadiya et de l'amener ici. ñi ngi ñaan itam fu nit toll degli a bu ko ne mané nit mané jël dajalé li ñuy indi ci addee mu indi ko fii itam ñi ngi leen di gërëm ci lolu fu dégg baat bi rek ñi ngi lay ci lool we calling And we're reminding everybody that the Sharif Sheikh Omar is here with us. And as we used to do, we have to bring his idea and we asking everybody wherever is wherever is when he hear this call to try to help us to bring the idea here. We're calling everybody, everybody to bring his idea. Ñu ngi oo ñëpp ñu idea muy addiyee shérif bi kon cheikh bismillah waaw euh, cheikh dafa ñëw pour wan sëñ bi dafa ñëw pour wane programme bi nga xam ne moom la def ci tef siiri baay bi nga xam ne daf ko boole kaamil bi boo tegee sa loxo ci benn aaya rek da nga dégg tafsiri baay bi ci arab danga ko dégg ci olof bismillah تشرح ولا ما, ما تحتاج للشرح ها بلا صعب allah ci liggéey bu rafet bii mu def Baba, baaba nga ne luy bàyyi doon yitteel daf ko yitteel nee na daal daf cee kontaan ba dana ko décorer bu bu ñu buñ paree ci programme bi nga xam ne moom lay wane ngir am gim am solo bismillah sawtu beneen tinit son bi addee shérif bi nañ ko indi fu nit mën a tollu dégg baat bi lel baas bi version française bi am na ñu ko soxla fii nii nañ nañ ko عبر شبكة أيوة. تراث الفيضة التجانية التي يديرها صاحب المشروع قريبا إن شاء الله سيتم إطلاق تطبيق تفسير الشيخ إبراهيم النياس الصوتي على الهواتف الذكية بميزة تصفح المصحف الشريف والتنقل بين التفسير العربي والولوفي والاستماع إلى التلاوة وميزات أخرى متعددة فكرة وتنفيذ المشرف العام على شبكة تراث الفيضة التجانية المهندس سيدي محمد بن محمد العاقب الذي شرفه الله بأن اعتمد على مجهوده الخاص راجيا من كل المستفيدين صالح الدعاء والتوفيق لإنجاز مشاريع مماثلة أول مشروع من نوعه لتقديم تطبيق تفسير الشيخ إبراهيم نياس للقرآن الكريم باللغتين العربية والولوفية بأحدث تقنية برمجية على الهواتف الذكية فكرة وتنفيذ وإشراف المهندس سيدي محمد بن محمد العاقب لما كان التطبيق يجمع بين التفسير الصوتي مع تصفح المصحف الشريف ومن أجل إنتاج نسخة رقمية عالية الجودة من المصحف بحيث يمكن الاستفادة منها وتصفحها بصفة مريحة اقتضى العمل اعتماد نسخة من مصحف المدينة المنورة والعمل على معالجتها بجودة عالية معالجة الملفات العمل على نسخة أصلية فيكتور من أجل أن تكون الكتابة واضحة جدا عمل خلفية مريحة لعين القارئ زخرفة الآيات القرآنية زخرفة عناوين السور بحيث ظهر تميز هذه النسخة بعد هذا العمل على نسخ المصاحف المحملة على الهواتف وتلك التي على الشبكة عمل التطبيق الضغط على السورة للاستماع للتفسير أو تلاوة الشيخ محمود الحصري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إمكانية استخدام مشغل الصوتيات مع ميزة التحكم في خيار اللغة الاستماع للتفسير مع خيار الانتقال بين اللغتين العربية والولوفية جئناكم بتفسير موجز تحرينا أن نفسر لكم القرآن بالقرآن بسلام آمنين يوم إمكانية وضع علامة والتحكم فيها إمكانية تحميل الملفات اضغط على تحميل ثم تحميل إمكانية تحميل ملفات الصورة لحفظها على ذاكرة الهاتف دون الحاجة للإنترنت أو خيار لاستماع بواسطة الإنترنت. حول التطبيق نبذة عن المفسر دعاء ختم القرآن الكريم للمفسر إمكانية مشاركة التطبيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي en programmation de pointe, de l'exégèse coranique vocale et intégrale de Cher Brahim Neas, dans les langues arabes et wolof. Idée, conception et conduite d'exécution de l'instigateur et maître d'ouvrage du projet, de l'ingénieur Sidi Mohamed Mohamed El Arkad. Étape d'exécution du projet, investigation et recherche des cassettes magnétiques de l'exégèse et mobilisation de 600 cassettes durant 6 années d'efforts continus. Conversion des cassettes magnétiques en une duplication numérique accomplie. Traitement de la copie numérique issue de 600 cassettes magnétiques pour en extraire un temps d'exégèse de 93 heures, dont le retraitement par procédé technique digital avancé, tels que le traitement harmonique, suppression des bruits de fond et des vides, filtration vocale et remplissage des tronçons manquants. Réduit la copie intégrale et fiable, traitée de l'exégèse, à un temps fini de 75 heures. Pour aboutir enfin à l'étape d'édition de l'exégèse à travers le réseau Toras Elfeida Feida Tijania, appartenant à l'instigateur du projet, à l'issue de la finalisation de ces étapes fondamentales. Montage de haute qualité sur YouTube et hébergement sur réseaux sociaux de l'exégèse intégrale de Cheikh Ibrahim Nias, véhiculée en technique de pointe par vidéo professionnelle. Production d'une vidéo professionnelle de l'exégèse réunissant simultanément la voix de l'érudit au texte écrit, dont les séquences seront publiées sur le réseau Toras El Faida Tijania, que dirige le maître de l'ouvrage. Le lancement d'une application portant l'exégèse de Cheikh Ibrahim Nias sur smartphone, avec option d'interface des pages du Saint-Coran écrit, et la navigation entre l'exégèse vocale de l'érudit en arabe et en wolof, avec jouissance de l'écoute de la psalmodie du Saint-Coran, sera opérée dans un avenir proche. Idée et conduite d'exécution de l'instigateur et maître d'œuvre du projet, l'ingénieur Sidi Mohamed Mohamed El Arkan, comblé par la providence d'Allah de compter sur ses propres moyens dans l'exécution de cet exploit qui constitue une première dans sa structure innovante. Espérant gagner le mérite de l'agrément d'Allah et des prières des usagers pour l'accomplissement de nouveaux projets similaires. Premier projet du genre, une application en programmation de pointe sur de l'exégèse coranique de Sheikh Brahim Nias dans les langues arabes et wolof. Idée et conduite d'exécution de l'ingénieur Sidi Mohamed Mohamed El Agheb. Considérant que l'application combine l'exégèse vocale à l'interface des pages du Saint-Coran pour produire une copie électronique de haute qualité du Saint-Coran, à même d'être exploitée et parcourue aisément, une copie du Saint-Coran d'El Medina El Munawara a été adoptée pour être améliorée et traitée avec haute technicité. Traitement des fichiers. Travail sur une copie Victor pour que l'écriture soit illustre création d'un fond de page confortable pour le lecteur, ornementation des versets coraniques, embellissement des titres des sourates. Cette copie du Saint Coran ainsi traitée eut l'avantage de distinction notoire par rapport aux autres copies du Saint Coran téléchargées sur smartphone et Internet. Exploitation de l'application cliquez sur la sourate pour écouter l'exégèse ou la psalmodie de Sheikh Mahmoud El-Oussari. Possibilité d'utilisation du lecteur audio avec fonction de contrôle de l'option langue. Écoute de l'exégèse avec option de navigation entre les langues arabes et wolof. Possibilité de marquer et de s'y référer. Possibilité de télécharger des fichiers. Cliquez sur Télécharger, téléchargement accompli. Possibilité de télécharger les fichiers de la sourate et de les enregistrer sur mémoire du téléphone sans recourir à l'Internet, avec l'option d'écoute sur Internet. Concernant l'application, présentation brève de l'auteur de l'exégèse prière de l'auteur de l'exégèse sanctionnant l'achèvement du Saint-Coran, quatre mains. Possibilité de partage de l'exégèse sur les médias sociaux. Idée et exécution du directeur général du réseau Tourat El Faïda Tijania, Sidi Mohamed Mohamed El Agheb. هذا الشيخ محمد أمين كان أعد لكم جائزة على هذا العمل الإنجاز العظيم ñu may baaba léegi téere yi ñëw na ñi ci doon laaj ñëwal